sallallahu ala muhammadin déglul ma wax la mbooti laylatul xadar nga fàtte guddi ya wéyoon fàtte jabar guddi geroog la yàlla wàcce alxuraan mbóot yaa waral nuy woor ci weeru ramadaan mooy laylatul xadar ci weeru koor la moom la ma Seex Fadlu waxoon ngir góor la moom la Sëriñ Tuubaa gënoon a fonk gannaaw guddi gàmm ba jant fenk duus la daa fanaane gaayey sikar xasida yi déngoo ba muy julli fajar nangeen ko dool lay fonk weeru koor wa ndax yàlla dég jéggal nu bisub tàngoor wa waaye wuute yaa ngay coowaloo ci bis ba ngir darajaam jaa tax ñu lëm baatin ba ma njëkk laa wax weeru koor yoolam ba ak darajaam soog laa xamal bisam ba buur yàlla ne bind na am malaayika ma nga aras day woor bëccëg woor guddi ga moo nuy teree woor guddi ngir kooram ga ndekoon guddeeg bëccëg lanuy def koor ga mi ngi fi junni bi junniy malaayika yuy jéggalul waay woor ya fii hunaaka bis buñ wumee mu daldi dem fa yàlla ne ko nga jéggal gaayi woor ngir yàlla buur ne ko jéggal naa ñi woor ngir yàlla ba jéggalaale ñi wumul ngir yilla mooy gaa yi leen di jox ñam yu sell ak ndox yu teey ngir sàkk yoolub yàlla buur yàlla daldi tàmpe yónni ridwaan ne wubbi naa aljana tey ngir ramadaan ñu daldi bi buntu jaanati nahim tëj bunti jaanama keroog ba ñépp génn mboolem ñu faatu woon ci doomi aadama kenn dootu leen mbugal ci xeetu jaanama keroog bisub kumte la yàlla yi jéggal téeméeri junni koor a leen may njéggal suy ñaari fan mu def ko ñaari téeméer ciy junni ngir xam leen ni weer wi lee foor suy def ko ñetti téeméer ciy junni ngir weer week jullit ña koy woor ja ñeenti fan mu def ko ñeenti téeméer juróomi fan mu def juróomi téeméer nii lañu koy fulee ba weeru koor xëy ja ñeenti aljuma mu dàmbi seen fay ku dogee tàndarma bu lew ci weeru koor ñu ful saraka yi ñeenti téeméer su laylatul xadar ñëwee ñu ful ko junni bi junni malakoot ak mulku ba bés bu ñuy wori mu jéggal ñépp ku bokk xeetu Mustafa te sopp ku dul ku mortat kuy bokkaale mbaate jabar buy far gisaane yaale mbaa koy dogom mbokk limal kuy njaaloo mbaa kuy naankat bu màndi xaalu ñii la borom aras ne barkeb ramadaan mën leen a may yërmande bañ tàbbi naan ma wax la mbóot yi am ca laylatul xadar da dalay tarti ba ca mat layil fajar yàllaa ne xayrun min alfi shahri moo gën junniy weer loolu doy na bayre bu yàlla ne tanazalul malaa'ika wa ruux fiha bu diggee am baraka malaaka yépp wàcc ak jibriilu fanaan ci àddina dinaaw jëmbeelu guddi keroog jibriilu tudd taaxiru ñu soppi mikaa'ilu naa ko zaakiru ñu jàpp asraafiilu tuddee raakiyon yàlla ne asraa'ilu des fi saamiyon ngir su ñëwoon suuf ruy yi daldi faatu moo tax mu des asamaaw ndaw yaatu buur yàlla jox na leen juróomi parison ñu àndi àddina te deesu ko rësal baa pare moo di liwaa ul xamdi moom lay xaroo njool màkk yowmal jundi baa pare moo di liwaa ul maxfira bilee liwaa ul raxmatin ak sutura balee ñu ñu tuddee liwaa ul karami kum nga am karaama am ay dërëmi ñu fab liwaa ul xamdi samp asamaaw diggante mulkook malakoot ñépp ne waaw kum tiim nga seeru mustafaa yowmal xiyaam tàbbi ca biir parasolam ba te ne kaam keroog la jibril firi junniy laafiya tiimale àddina ñu mel ni raaya jibrilu del du fab liwaa ul maxfira samp ca kaw madinatul munawwara leeram nga tiim xabru rasuulillaahi malaaka yépp di sujjóot lillaahi bur yàlla daldi siñe jox yeneen ba mu siñe naa jéggal naa tey zan baa dellu fab liwaa ul raxmati samp ca kaw kaxabatuhu bi raxmati ñu daldi tuur yërmande mboolem duniyaa malaaka yi sàbbaal di fan yu bon ya jibriilu dellu fob liwaaul karami aj ko ci jawwu ji mu tiim doomu aadami malaaka yépp wàcc tàbbi réew ya wasal karaama yi ci ngën ji suuf yi xéewal yi ak wërsëg yi daldi baawaan ci doomi aadama yi mbiri saawaan bi isni rabbil aalamiina ba fajar maa salaamatin ñu dellu di sabar yàlla ne leen nu ngeen def ak waa duniyaa ñu ne ko ful yu baax ya far yu bon ya waaju fi laab jibrilu ful sa ga ci turu taaxiru guddig màggal ga kuñ fekk ngay sikar ñu booleek zaakiru mu faj sa aajo tuddee abdul xaadiru kuñ fekk ngay rukon ñu wan la raakion mu fol sarakaya nga siggi saafiyon kuñ fekk ngay nelaw ca biir màggal ga du tey ñu fay la genn wàll guddi ga yàlla ne leen yoolub malaakay asamaaw ak yee ci suuf ful naa ko may leen ñu ne waaw yàlla ne leen dadalee mulkook malakoot jox naa ko ñay màggal guddeem ga ñu ne muut yàlla ne leen guddi gu ñëw ma xool leen ngir soppi leen junni bi junniy xoolin xoolin bu ñëw maram mu junni junni ngir laylatul xadar ci saaru sanni ni Mustapha gënee ci mbooleem jaam yi la laylatul xadar ci guddi yi ni xeetu yoneen gënee mbooleem xeet yi la weeru koor gënee ci mbooleem weer yi taxawlu naa lii doy na waajuy màggal ngir laylatul xadar ba daa ko fàggul yoolub junniy weer am ko genn guddi la yàlla wax doy na koy weddi yàllaa ne xayrun min alfi shahri waree su koo nelaw li us usni xayri